mooy ñun ñëpp ñu ñu yëg ni am na fu ñu commencé am na jéego yu am solo yu ñu def waaye li ñu dese bëri na su ma nee li ñu dese bëri na nag bu leen ko jàppee rek li ñu dese pour ñu mottali ba war a mun a egg ci nguur gi yàlla dénkuñu lu ñu mën a appliquer suñuy idée soppi réew mi définitivement waaye fi ngeen ko war a déggee mooy ñun suñu biir déjà ñun suñu biir li ñu dese bëri la parce que yéen ñëpp suivre ngeen li ñu jógee mooy investiture élection locale investiture yooyu nag jàngat nañ ci lu bëree bëree bëri bëri waaye man principal jàngat ma si jàngat mooy li ëpp ci ñun li ëpp ci ñun wuutewuñu torop ak ñi ñi ŋàññi tay ba bëgg leen fi jëlé lélé sax damay est ce que ñun yeesuñu yeesuñu ci ñoña parce que li fi xew ak li ñu woné du doy war la ndax ci pasteur rek nga gissé d'abord bi ñi def suñu investiture interne ci pasteur nga gissé ku ñu tanul rek mu né tay ma xaru tay ma tas ku ñu tànnul rek mu mel ni àdduna foofu la yem te pourtant ñun ñëpp dañu ne woon projet bi moo ñu intéressé jëmmu Ousmane Sonko sax amul solo waaye projet bi moo ñu intéressé projet bi changé wul une virgule tey la projet bi gën a doon projet tëgg nañ ko ba mu dëgër xam nañ fi mu jëm te dara changé wul du ci discours bi du ci comportement bi du ci yéene gi ñu am ci réew mi mu des nag li jëm ci suñuy jëmm kenn ku nekk individuellement waaye premier enseignement bi moy xëccio falu xëccio falu. man ma wara tok sudul man du kenen wane na ni liñu déssé bari na trop que compréhension bi liñu wara am ci projet bi des na lu bari bari bari bari ku ñu falul nga né gedd na ku ñu falul nga né bank na sama yoxo duma campagne ku ñu tanul nga né dem na defi liste parallèle te bobu jamono yow xam nga ne liste parallèle bi ngay def dafay wàññi doole parti bi ndax ay xob ngay ut dem sottil ko keneen ku dul parti bi keneen ku dul coalition bi ba pare ne yow yaa ngi ci projet bi ba léegi boo jógee ne waaw élection locale la nii la mën a demee waaye buñ ci génnee man présidentiel maa ngi Ousmane Sonko bu dee affaiblir nga Ousmane Sonko ci élection locale ba pare looy loo looy looy dooyee ànd ak moom ci élection présidentielle parce que jamono jii lañuy togg li ñuy yóbbu ci élection présidentielle waaye li ma ci bëgg a wax rek mooy diggante théorie bi discours bi ci patriotisme ci gëm projet bi ak épreuve bi mu ñëwee épreuve mooy toll nañ fu ñu waroon a tànnee suñu ñu ñu war a jiital ci benn élection ndax élection day doon kese bi mooy suñu première élection locale am na lu mu wone lu lu lu firndeel ni wutewuñoo gaa yi trop li ma gis ci Pastef sax gisuma ko ci yeneen coalition yi ndax Pastef rek ngay gis ku ñu ne tànn ñu la rek nga dem woo presse bi lu la neex nga wax wala nga dem ci Facebook lu la neex nga bind loolu gisuma ko ci PDS gisuma ko ci APR gisuma ko ci réew mi gisuma ko Pastef rek laa ko gis kon loolu njàngat la ñaareel bi mooy lu ñaaw lu ñu mën a wax ci politique rek ci anam yu mel nii ci coalition bi ñu bokk. mun naa ni quatre vingt quinze pour cent yi ci Pastef la jóge ndax ñi daw ak mandat ci Pastef lañu ñu jóge ñi kidnappé mandat bi ñu leen yi wër ci dëkk bi ci Pastef la jóge ñi mer dem def liste parallèle ci Pastef la jóge ñi dem ñu wóolu leen ba ba def leen mandataire ñu dem ba ci biir préfecture ba daa di changer liste bi génne ki ñu defoon tête de liste bind seen bopp ci tête de liste ci Pastef la jóge waaw loolu est-ce que bokk na ak ñun la ñëw sénégalais yi valeur yi ñu woote valeur yi ñu ne moom lañu bëgg a soppee réew mi ku mën a def loolu xam nga ni bis boo ko dénkee keesu keesu état bi mu mu mu mu këpp ko ki mën a daw ak mandat parce que jox nañ ko xaalis ki mën a soppi liste ki nga xam ne un deux ne mer naa dem naa feneen wala tey naa sama loxo kooku ëllëg boo ko joxee responsabilité ci réew mi boo moytuwul euh, lii ñu doon joytu fii lu lu ko raw lu ko raw lu ko raw dinañ ko gis kon njàngat gi mooy liggéey bi des na lu bëri bëri bëri quantité de am nañ ko fi mu toll nii ñu ngi koy commencé am waaye qualité gi des na torop ñii dinañ ma ne problème formation la ñeneen nañ ma ne problème encadrement la ñenn nit nañ ma ne problème maturité politique la waaye jàpp naa ni am na loo xam ne bu dee mi ngi ci nit nga jikkawoo ko mooñoo ko am na loo xam ne soxlawoo jàngal soxlawoo ko la ko jàngal njub kenn du ko so a ah, dem ba am 30 ans 40 ans 45 ans 50 ans am na loo du luñ lay jangal meuna gëm say principe ba dara du la keuf du alal du luñ la dik wala du du xoppatal koku defena wessu na fuñ ko wara nekké di jangalat nit ñi donté parti bi warna di former donté it nak parti bi formé na lu bëré bëré bëré wax na lu bëré parce que première formation moy yow ki la jité wala ñi la jité lan lañ leen won ak lan lañ leen wax dañu wax nañu waxat nañ ci télé wax nañ ci rajo yi am nañu jaar-jaar ci réew mi kon loolu mooy première formation parce que première formation mooy par <clears throat> l'exemple par la pratique et par le modèle kon loolu su ngeen gisee ma dooree foofu dafa fekk ma jàpp ni yéen ñi nekk ci diaspora bi de manière générale donte yenn jàngoro yu am fii euh, mucc leen ci à cent pour cent waaye yéen ñi nekk diaspora bi en général da ngeen gën a wone parlu gën a wone engagement gën a wone désintéressement gën a wone waaye gën a wone compréhension ci projet bi kon yéen dañ leen di joxe toujours en exemple dama naan bu dee ñu ne ci diaspora bi ñi nekk biir réew mi noonu lañ ko comprendre woon waroon nañu mën a am yaakaar ni mbir mi dina gën a yomb dina gën a gaaw dina gën a baax